njëriñu position wu conseil constitutionnel bi ci suñu futur. Ah, wax jooju nag mu am intéret nag soxna si bravo <laughs> xam nga. Euh. man damay indi lépp ñu xool lépp njëriñu euh, conseil constitutionnel bi euh, d'abord problème mu élection bi nga xam ne dañ ko doon jëm a dax dañ ko doon jéem a dàq vingt cinq février bi ba tey sax dàq nañ vingt cinq février bi mu indi lii ñu xam yépp conseil constitutionnel ñu wax si loolu mais conseil constitutionnel dafa dépassé loolu dafa dugg si loo xam ne man mboog depuis quarante ans moom lay ñaan c'est moom laa wax keroog ak Alassane Samba Diop di ko ñaan conseil constitutionnel dama si sant yàlla si naa leen wax lan la mais bu ñu yemee rek si affaire u élection bi kese pour le moment conseil constitutionnel dafa wax ne damay jëkk a poser principe bi mu jëkk wax dafa jëkk ne kenn kenn sañul bu nee kenn sañul député yi président de la république yaax man ak moom si boppam kenn sañul di yokk wala di wàññi mandat wu président de la république parce que politique bi moo ko laaj parce que intérêt yi laa ko laaj mooy li mu ne au gré des circonstances politiques kenn sañul yokk mandat wala wàññi mandat wu président de la république loolu ci ko wax daal di ne nag ñi nga xam ne dañ ko def ci assemblée nationale bi la def daganul dindi ko daal ne léegi yow président de la république yow sa bopp tam nga ñëw jël décret daal di ne man maa oote woon ne ñëw leen wote le vingt cinq léegi woowatuma leen toog leen seen kër mooy décret boobu sa décret boobu tam dafa ànd ak loi bi nga xam ne dama ne daganul te si wéeru c'est ba mu si wéeru sax loi bi ñëwagul kon comme que dafa wéeru si loi boobu c'est bokk kooku ndey wala bokk kooku deret mënuma annuler loi bi sa duma la dindi. te lu ma annuler sa décret. waaw ah, dindi olof lay làkk fi nekk de am na ñoo xam ne sax annuler xamuñu ko parce que entre annuler résiliation révision résolution. ay eh, terme juridique la wolof bi dama ne dindi la nga wax ne woowatoonu pour nu wote wax ju mujj jooju dindi naa ko mooy décret bi ñu ne ko nag lu tax nga ngay dindi décret bi am ñu wax loolu man ba may def sama débat boobu nee naa te danga ko xoolaat maa ngi poser problème bu bees dama ne nañ annuler loi bi wante maa ngi poser conseil constitutionnel problème bu bees est-ce que am na droit annuler décret bi est-ce que mën nañ ko yóbbul décret bi man ma ne waaw ne ko na ko def sama wax la woon de opinion kooku nag opinion la woon am nga opinion boobu amagul woon sama xalaatu la ma bëgg la ànd ak nag la ma xam si yoon parce que dama ne cour suprême mooy faral di àttey décret mais façon décret bii àndul si pouvoiru cour suprême ña def loolu foofu la ñu doon jéem a naxe pouvoir cour suprême mooy décret boo xam ne dañ ko ne dafa am loi boo xam ne dafa wax ne avocat yëpp dañu waral sol robb bu weex wante décret mooy wax naka la robb bi gàtte wala mu guddee nga ñëw ne avocat yëpp robb bu ñuul la ñu war a sol léegi déet loi bi moo ne na yow décret waxal guddaay bi ak gàttaay bi mais bu lox couleur bi. parce que gars yi tombé nañu ci piège bi d'ailleurs dans un premier temps. la ñu dem déposer recours au niveau du conseil. xoolal sama débat boobu. <laughs> mais conseil bi nee na puisque décret bi dafa laal wàllu élection te moom mooy juger de la régularité du processus électoral donc euh, daf koy annuler waaw xoolal sama débat boobu c'est la première fois qu'une telle question se pose la première fois comme que ça va se poser ma ne leen cour suprême du compétent parce que décret bi décret carré décret général la c'est dans le pouvoir réglementaire du président de la République c'est pas un décret d'application d'une loi ordinaire cour suprême du compétent alors et le conseil constitutionnel ma ne kon conseil constitutionnel ne poser problème bu bees daal di wax quel le lien lan moo boole décret boobu ak constitution bi. mais lan moo tax décret bi bon alors. est-ce que ni ko président de la république. dafa warul nekk rek jeex na. non est-ce taxul mu bon de dafa warul nekk. non dafa warul nekk mais est-ce que conseil dafay sanctionner le fait que président de la république. jë abroger décret bi balaa ñuy dem wote loi bi parce que mu ngi ko def le le le cinq est que conseil loolu lay sanctionner wala est-ce que conseil li muy boole di sanctionner mooy li décret bi rattaché à la modification de l'article 31 mu jàpp ne bu article 31 baaxul décret bi baaxul. ñaari benn source la benn pièce de monnaie la pièce de monnaie boo xam ne ñetti juróomi dërëm boo xam ne benn côté la amul. ñaari côté yi mooy tax nga ne juróomi dërëm ñaari question bi nga posé benn pièce de monnaie kese la le fait xam nga fait mooy lan. le fait le fait mooy li xew. Mm-hmm. le fait mooy li xew. interprétation mooy na ko gisee décision mooy la nga ci wax fait bi li xew mooy président Macky Sall avant assemblée bi di wax wax na moom wax décret loolu mooy le fait. léegi nag gars yi nag si fee bi ñu ne ko da nga wax sa décret avant assemblée di wax loolu mooy fee bi mais interprétation bi ak conséquence bi mooy nu mu manti demee décret boobu dafay ànd nu mu manti demee ak loi boo xam ne annulé naa ko loi bu ma annulé nu mu manti demee décret boobu day ànd ak moom bokk ndey bokk bàyyi ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk la leen andi kon boog man conseil constitutionnel annulé naa lépp à partir de du fait que loi bii nga xam ne mooy mooy ndey ji ah mu ëmb décret bi ak mu boot ko lu mu mënti demee mooy ndeyam bu ma reyee ndey nag doom ju ñu boot boo moytu bu dee kàmb ñooy ànd